Euh, euh, Viviane boo ko xoolee euh, dafay toppatoo Euh, li muy lekk. exactement Pape nga euh, lekk bu neex ak lekk bu baax dafay feeñ. ci euh, morphologie wu nit. te xam nga ni star yi nga xamante ni Pape ay mannequin lañu woykat yi wala actrices yi. Mhm. ku ne xam na ni ñoom seen ay méthode de lekkin dunduroog ñun mi nga alfi lambda mi nga xamante ni lu mu romb rek lekk ko donc Vivi bëggoon nañ ko laaj quand mu wax ñu régime alimentaire am lan ak lan la composé est-ce que dafay def comme star américaine yi nga xamante ni léeg-léeg dañuy génne pâtisserie dindi yàpp dindi tout ce qui est protéine ci seen ci seen lekk sax da ngay gis ay stars yoo xamante ne pot yi bébé yi di lekk la ñuy lekk pour bañ jël poids pour euh, am bien-être pour seen forme yi nga xamante ni moom la ñu bëgg gën a mën a gën a mën a génn est-ce que euh, Viviane dafay suivre euh, genre régime boobu Pape laata may jàll ci salade bi ma ko defaral. <laughs> dafa nekk yow tamit. Alfie. <laughs> man daal man daal xam naa ne daal. Uh-huh. ah hmm. bu ma yeewoo daal dinaa ci def jus d'orange café. def sama tuuti spor ah ndekki ndekki bu bu oyof rek su ma lekk bëriwul nag mais daal yaakaar naa ne daal àddina moom mhm. stress mooy indi lépp mais lekk gu baax aussi dafa am solo. parce que même stress dafay tax doo lekk lu baax. voilà stress dafay tax am na ñoo xamante ni stress tax ñu am yaram. am na ñoo xamante ni stress dafay tax ñu jeex. Euh, donc c'est toujours bien de de de de bien suivre régime boo xamante ni dafay tax nga garder forme bi parce que yombul nekk jigéen ba pare woy dafa metti mm-hmm. nekk bête de scène mm-hmm. di nga fecc. di nga ànd ak sa effort bi ñuy fournir di nga di nga fournir ay effort yoo xamante ni yombul sax pour góor waxatuma laa jigéen bi laa yombul yombul waaw waaw surtout mm, mm. lekk bi varié je reste convaincu que ngay bàyyi xel ci li nga xamante ni yaa koy lekk waaw waaw xam nga rek ñun moom balaa ñuy kontaan lekk dibi dibi dibi trois heures du matin wala ah yooyu <laughs> <laughs> baaxul donc euh, voilà il faut ñuy xoolaat li ñuy lekk c'est vrai Alfi dama lay xool damay xool damay gis xam nga ni nga ñuy delloo si waatee ah, donc mais lekk lekk bu bu bu baax daal dafa voilà dafa dafa baax ci doomu aadama parce que am na ci yoo xamante ni dañ naan par exemple baaxul pour baat wala mhm. naan ndox bu sedd bu bëri je sais pas mhm. euh, euh, li ngay lekk itam da ngay sóoraale euh, baat bi waaw am na ci loo xam ne moom day rey baat dafa gaaw euh, genre ay diwtiir yooyu ah. boo waree way moom voilà non non dina neex lool buñ ko toggee mais bon ci ay nitam aussi ah xam nga waaw mais boo ko laalee man moom bu ma ko laalee day rey sama baat su ma waree jouer ji mhm. donc am na yu bëri yoo xam ne dañ koy moytu mhm. voilà mais moo tax moo tax voilà moo tax lekk moo tax lekk lekk lu baax dafa <laughs> dafa am solo pour activité bi rek après doomu aadama yëpp mais li ngay togg tey salade la mhm. après un week rempli de bouffe lekk ba biir fees mhm. ñamu soow dimanche exact soosu samedi waaw waaw donc boo xëyee leen di war a salade def tout fait te ba kenn laaju la mhm. eh, te yaa ma laaj ma lijjanti ko euh, <laughs> beurre bocage daal bi di toggee comme chaque matin on découvre recette bi mu ñu euh, pour Viviane. yeewu leen ak jàmm et passez un bon moment en savourant un succulent petit déjeuner avec votre bocage et son délicat goût de beurre devant votre émission préférée du matin yeewu bocage euh, beurre bi ci vitamine yu bëri yi moom la Alphie di toggee comme chaque matin. comme chaque matin Pape mais bu ko laajee sax mën nañu euh, doxantu ba yoonu Bercy ah pourquoi pas gunge Viviane ci régime alimentaire bi nga xam ne euh, moom la war a suivre xam nga ni ku ne lundi comme niñ koy faral di defee en général dañuy def le plein de vitamines ku ne xam ne ni minéraux yi ak vitamines yi nga xam ne moom la suñu yaram soxla légumes fruits yi ak légumes yi. Euh, ñoom ñoo koy jox euh, xam nga tey soo jëlee lu mel ni carotte andi nañu lu mel ni haricot vert gis nañ ko ci plan de travail bi andi nañ lu mel ni tomate farcie andi concombre euh, andi avocat bi nga xamante ni moom mooy composé recette entière bi parce que ku ne xam ne ni ferñeent yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci avocat bu ñu leen doon lim sax limite duñ duñ duñ fi jëlee parce que waxtu chaque fois ma wax ko gras yi nga xamante ni moom la suñu yaram soxla muy gras yu yu baax yi euh, bokk na ci li composé euh, avocat bokk na ci li avocat am nga xamante ni euh, temps yi mi ngi fees dell ci marché bi merci beaucoup toog donc mi ngi fees dell ci ci ci marché bi nga xamante ni bienfait yi nga xam ne moom moo nekk ci avocat bu ñu ko doon lim sax duñ fi jóge donc ku ne xam na ni avocat am bokk na ci ay fruits yoo xamante ni dafay oxydé wu donc li muy oxydé woo pour ñu pour fekkee dañ koy defar war ko garde mën nañu jël citron daal di ko ciy def mais su fekkente ni nii nga xamante ni dañ koy euh, dagg rek lekk ko soxlawul ñu koy ñu koy citronné donc su leneen leneen li nga xamante ne nag moom moo koy composé tamit bokk na ci crevette crevette ku ne xam na ni moom mooy ñëw remplacer euh, élément yi nga xam ni en général moom moo ñuy andil euh, protéine léeg-léeg boo nee salade nit ñi xaar ci poulet wala ñu xaar ci ay dogu yàpp mais bii nga xamante ni moom la ñu andi li ma si def li ma siy def mooy crevette donc li may def mooy teg naa pol bi ci suba am fi crevette yi nga xam ne wax naa ko ci suba léeg nga dem Euh, kilo bi varié entre 3000 3500 bu fekkee calibre bu ndaw bi la mais su fekkee bu dijji dijji bi mën na yegg ba 4500 jàpp 6000 limite dem sax ba coté côté mille crevette nag nekk loo xamante ne euh, ñu bari dañ ciy def réaction allergique mais bu fekkee dalu la mën nga ci dem ba mu jeex euh, beurre bocage nag ku ne xam na ni moment bi moom la ñuy àndal dañ ciy daj dajji paquet bi daal di koy utiliser pour faire sauter les crevettes donc benn noix rek nga xamante ni bon goût de beurre bi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy laaj tout le temps daf ñu koy daf ñu koy jox dool bu ko defee nag ñu daal def si crevettes yi nga xam ne moom la ñu andi tey donc nettoyé nañ ko ci suba daal di génnee euh, neer yi nga xam ne moom mooy faral di nekk ci crevette te muy nekk ci digg bi léeg bu ñuy togg crevette xar ko pour mën a génnee génnee neer boobu nga xamante ni léeg du neex bu ñu koy lekk parce que di lekk ay genre euh, crustacés yu mel ni ba pare di daj suuf c'est un peu désagréable don ku ne crevette xam ne moog laaj euh, ça se marie très bien donc ñu jël ñaari doom dooñu laaj def ci biir donc mi ngoog et puis xorom poobar euh, def dolli tuuti huile d'olive pour mu ñëw accompagner beurre bocage bi def xorom def poobar pour mu am goût laataa muy dugg ci biir salade bi en général su ñuy defar genre salade yu mel ni da gis ni dañuy baxal crevette bi mais man j'aime pas trop parce que euh, éléments yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci crevette bi yëpp les limites dañ koy perte ci ndox bi moo tax euh, dañ koy jël saafal ko suñu bopp ba nga ba ñu am quelque chose de croustillant pour mu ñëw accompagner accompagner salade bi donc le temps que crevettes yi di mijoter nii ci ci poêle bi mën nañu jàll ci yeneen euh, leneen li composé ku ne xam ne ni tamit salade day ànd ak vinaigrette jël naa ci suba ñaari kuddu vinaigre euh, vinaigre euh, rouge bi nga xam ne moom la ñu am def moutarde def xorom def poobar daal di koy mélanger sànni ci persil ak tuuti laaj daal di koy terminer nag ak huile d'olive boo xamante ni mi ngi jugee fraîchement Espagne léegi nag dañuy génnee avocat bi avocat bi ci coquille am Euh, excellent pour les femmes enceintes yi nga xamante ni euh, ñoom euh, vitamines yi nekk ci ci avocat baax na ci ñoom ñi nga xamante ni dañu am tam ay carence ñi ñi am ay feebaru bët avocat baax na ci ñoom parce que nee naa la gras yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci avocat dafay dem directement ci cerveau bi moo tax bokk na ci ay fruits yoo xamante ni dañ koy priser di ko def ci ay smoothie di ko def ci ay di ko def ci ay salade comme bi ñu defar tey di ko dagg noonu kase di ko lekk bañ ci def trop d'éléments pour bañ a dindi nature nature bi donc loolu tamit daf si daf siy baax donc mi ngoog dañuy dagg avocat bi accompagner ko ak euh, salade bi accompagner ko ak euh, tomate fraîche bi concombre ñëw na ak euh, haricot vert carotte râpée ak li nga xamante ni moom mooy tomate tomate fraîche donc yooyu yëpp def nañ ko si biir salade bi pour mën a am quelque chose boo xamante ni lu lu lu différent lay nekk parce que bu ñu nee salade avocat crevette en général dañuy ñëw jël avocat def ci crevette def tuuti mayonnaise Euh, ak ketchup pour mu mën a ñëw accompagner ko donc bu ñu dee révisité ñun dañ ciy yokk yeneen éléments yoo xamante ne ñun ñoo koy tàmm suñu bopp donc Baye euh, mi ngoog xam nga tey soo jëlee soo jëlee composants yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci salade bi nga xam ni c'est quelque chose de très très riche très très varié avec les beurres bocage chaque fois dañ koy wax euh, prendre un petit déjeuner comme un roi euh, au déjeuner manger comme un prince et puis dîner manger comme un pauvre limite euh, di fortaatu mburu yi sax ak quelques fruits lekk ko pour am bien-être bi nga xamante ne moom la suñu yaram soxla Baye Cheikh donc on va assembler on va assembler le tout et puis ñu jox Viviane mu déguster ah. comme ça ñu ñam ñu ñam waaw en